والكتاب مرمي كودم كريم سيمان برام يايرو لعزم عزم سري برهم خير المصاب الكتاب المباي مامولا سر حقي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عن شيخنا وعن جميع مشايخنا وعن أولياء الله في السالفين والخالفين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته جلدي زيارة ñu ngi del si waat ànd yéen ci seen darsu bi nga xam ne bi ba tëgg la fayda ci seen seen Ibrahima TV ñu continuer ba tey ñu ngi ci nuyu moom gisoon nañ yàlla ne yonent bi sallallahu alayhi wa nel gaa ñii di la weddi ne leen rek faatu bi min mithli indi leen wennaw saar wu mel ni alquran waaye wa aqsara wa aqsaru suura muy continuer tële nañ ko mu continuer wa aqsaru suuratin wala wa aqsaru suwarin dégg nga suuratul kawsar te pourtant bi mu ne indi leen aw saar wu wu mel ni alquran suratu baqara fi su leen neexee nañ ko romb ali imran nañ ko romb suratu yaasin mu nañ ko romb saar yi gudd bëri na nañ ko romb nañ ñëw rek jël saaru mel ni suratu kawsar moo tax mu ne aqsaru suwarin suratu kawsara saar yu gën a gàtt mooy suratu kawsara wa hiya salaasatu ayaat mooy suratu kawsara ñetti aaya dong la waaye ba tey dégg nga kon gis nga dëkku am na wa kaana allahu yatahaddahum bi kulli salaasati ayat kon la ngay déggee ci faatu bi suurati min misli indi leenaw saar wu mel ni alquran liñ ci déggee mooy yàlla lancé na défi gaañe ne leen indi leen reween saar wu mel ni démb suratu kawsar yalla tëkku na leen ne leen ñëw leen ci aw ñetti saar maanaam ñetti aaya indi leen ñetti aaya rek loolu wax ji di tekki indi leen saaru mel ne alxuraan moo indi leen rek ñetti ñetti laaya ndaxte suratu kaw rek gàtt na ba ñetti aaya la te aw saar la dégg nga wax bi wala ma kaana kullu alquran sittatu alaafi aaya bi nga xam ne alxuraan yëpp juróom-benni junni juróom benn junne laaya la fa kadalika ayatan lazima an laa yakuna mujiza dégg nga mujizul quran mu ne su fekkee ne alquran ñetti laay yu nekk kawtéef te alquran gis nañ ne mu ngi toll ci juróom benn junne laaya mu ne kon li jaadu mooy duñ wax ne alquran benn mojiza la waaye la ñuy wax mooy alquran mu ngi toll ci ñaari junne mojiza ñetti laaya yu nekk dégg nga kawteef la laaya ju nekk kawteef la waaye fi ñu fi muy waxee ni ñetti laa yu nekk mooy kawtéef ndax ñetti laa yu nekk mooy saar wi nga xam ne wedam loona yéefar yi doon weddi kon bu alxuraan nekk juróom-benn junni laaya te ñetti laa yu nekk kawtéef la kon dinañ fekk ci alxuraan ñaari junni aaya jàngale boobu rek la ci bëgg jàng dégg nga wa ziyada wa sabata dalik fa naqulu in allaha subhanahu wa taala تصريف موسى في تسع آيات سنجد يا ردنا يوحنين أنت على موسى على سبحانه وتعالى منكم مقليتي ننت الله القرآن بينات يوير يلير نينت على موسى على مقلنا كتير القرآن تي نات الله جرم ننت الله فلأن يحصل تشريف لمحمد صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات الكثيرة كان أولى نينت على موسى miñ génnee gis na ne yàlla mu ko màggal ci lu man juróom-ñeenti laaya yu bir kon mu ne yonent bi sallallahu am na ak màggal ak ak ak ak njukkal ak teddal ci alquran ci laaya yoo xam ne yu bari la ay aya alkasir ay yu bari yi kon kaana awla moo gën a méngoo ci màgg kii juróom-ñeenti aaya lañ ko gis ne moo fees moo berne yàlla màggal na ko yonent bi saa sallam laay yi ci dund yëpp yàlla màggal ko ci liñ ci dogum rek bëri na lool mu ne kon kii moo gën a yee ci màgg moo gën a yee ci moo gën a yee ci ngëneel ci kaw bokk mi njàngale bu sew a sew la waaye dafay laaj boo tee boo ko déglu bu baax rek di xam dafa yi nga ci nekk kon génnañ mooy ñeenteelu lay bi ñu lay mooy indi preuve ñeenteelu preuve bi nga xam ne mooy lim la wax ci yi nga xam ne alquran mu ngi ci alquran kéemtaan yi nga xam ne mu ngi ci alquran kon alxujja alxaamisa juróomeelu xujja bi juróom-benn lay mooy anna mojisata rasulina sallallahu alayhi wa sallam afdalu min mojisaati mojisaati saayil anbiya mu ne dañ ci déggee ne suñu kéemtaani suñu yónnentu bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon na fa an yakuna kon war na mu nekk moom rasuluna si yonent bi afdal di gën naxal mbiyaa ci yonent bi su fekkee ne biñ déparé ba léegi di tudd kéemtaani yonent yi ak kéemti kéemtaani yonent yàlla Muhammad buñ ci xool gis ne kéemtaani yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo gën a foor fuuf kéemtaani yeneen yonent yi kon kay li muy tekki mooy suñu yonent bi moo leen gën gëneel mu ngi amee ci lañ ca la waaja xam te xamula ko lan ne ca waaja te newut ci yow dégg nga foofu la ngëneel amee te gis nañ ko ci diggante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak kon lii itam beneen beneen beneen ngëneel la boo xam ne yonent bi wa sallam wa bayaanul awwal qawluhu alayhi salaam alqur'an في كلام آدم ولا في في الكلام كآدم في الموجودة فوفلي جيخي فوفلي فوفلي تجي تجي درس مني يونت بي صلى الله عليه وسلم مو وخال بوكم ما دافني واخ لي نجين ني دا فاي ليرال واخ جي بيان بيغا خا مني دافاني كو مني دا فاي ليرال لي يونت بي صلى الله عليه وسلم وخون ني القران تي وخي ni aadama mel ci mbindeef ku ne xam ne ni mbindeef yëpp mooy seen moo leen moo leen wax ji noo koy déggee su fekkee ne aadama ni mel ci mbindeef yi noonu la ci yeneen yeneen yeneen yeneen wax yi ni ni alquran mel ci ñoom mooy ni aadama mel ci yeneen mbindeef yi ci déggee moom mbindeef yaa yàlla daf ci tànn aadama ci biir mbindeef ñu mu gën leen dégg nga yàlla may ko lum leen mayut xamal ko lum leen xamut jégleleel ko lum leen lum leen jéglelu ba ci malaaka yi ma allama aadama asmaa kullaha yàlla na lii daan la gaay kenn xamu ko mu ne aadama kaay dégg nga mu ñëw lu ko laaj mu tontu yàlla gënale ne aadama ci kaw malaaka yi comme ni mu ko gënalee naka noonu ci mbindeef yëpp doomu ci mbindeef yi léegi nag moo tax mu ne aadama moomu nim mel ci yeneen mbindeef yi mu ne noonu la alquran mel ci yeneen wax loo ciy déggee moo yonent bi sallallahu alayhi wa sallama alquranam ji moo gën yeneen téere moo leen gën a màgg moo leen gën a foor moom lañ ko jagale moom moom lañ ko jagleel kon ngëneel gi nga xam ne am na ko ci ñoom moo tax yàlla jagleel ko alquran jum joxut kenn wala nga ne alquran jim ko jox te joxut ko kenn loolu mën nga koo yokk ci ne bokk na ci lim gën a ñeneen ñi nga xam ne ay mbokk yonent su ko defee jàngar yooyu ay jàngat yu am am solo la mbokk mi nga xam ne yaa ngi topp ci Ibrahima TV eh, nga koy topp di ko di ko settantal bu baax suñ demee ba ca ca mujj gara allah yaakaar naa ne tegoon loxo ci yi moo gën yi dina mujj kon lii mooy li nga xam ne mooy suñu bari